waaw téléfilm bi dafa soft dañ ko nettoyé parce que am na ñu gën a métti yu fi jaar yoo xam ne dañ ko éviter wane parce que quand rey nañu ay nit ñu tëdd nii seen deret tiim leen tëj nañ fi ay nit yoo xam ne ci lu dul yoon yo yooyu yëpp jaar na fi donc yooyu kenn wanewu ko te loolu li nga wax léegi euh, affaire Maître Sèye ci histoire politique gu Sénégal la bokk léegi nag man tey ji euh, li ma neex mooy benn magistrat bu mel ni Andrésia Vaz mu ngi fi Andrés Jabas xam naa xamu leen ko euh, te moom rek laa bëgg gis je crois que dinaa ko gis balaa mu fiy jóge euh, moom moo nekkoon première présidente cour suprême cour cour d'appel te moo nekkoon président de la commission de recensement des votes en 93 élection législative la woon ñu pare résultat yi doy waar ci nguuru abdu Diouf moom nanguwu ko proclamer mu jël résultat yi noonu yóbbu yónnee ko conseil constitutionnel est-ce que yéen a ngi may déglu lii histoire la bu ngeen xamul léegi mu démissionné Kéba Mbaye moo nekkoon président conseil constitutionnel ba mu jotee dossier bi mu delloo ko Andrésia Vaz jox ko trois jours pour mu proclamer résultat provisoire parce que moom mënul proclamer résultat définitif te résultat provisoire jotu ko bés ba mu defee lettre bi pour jox euh, Andrés Yavas délai trois jours jour boobu la président Kéba Mbaye tamit démissionné kon tey jii ki war a proclamer résultat définitif démissionné na ki war a proclamer résultat provisoire démissionné na kon loolu naka lañ koy comprendre loolu est-ce que du problème loolu histoire politique Sénégal la boo xam ni xëy na loi d'amnistie moo tax retracé wuñ ko. violence yi fi amoon deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre xëy na loi d'amnistie bi tam moo tax retracé wuñ mais bu ñuy wax ci justice dañu war a indi lépp sans tabou sans tabou pas pour condamner nit ñi mais pour ut saafara ci yooyu kon en 93 Andrés Yavas démissionné président conseil constitutionnel démissionné donc ñu nekk ci guttu ci vide juridique Abdou Diouf woo Andrés Yavas palais ñu teg ko pression ba mu reprendre service mais trois jours yi ñu ko joxoon délai joxewu ci quand résultat comprendre joxewu ci résultat noonu la delloo dossier bi conseil constitutionnel fekk euh, Youssou Ndiaye moo nekkoon président Maître Babacar Sèye il n'était que vice-président jour bi dossier bi delloo foofu jour boobu la ñu assassiné Maître Babacar Sèye te loolu leeragul ba léegi tey ji nag suñu fi gisee ñu invité ku mel ni André Ziavaz te l'actuel ministre de la justice Ousmane Diagne moo nekkoon substitut procureur biñ may entendre man ci affaire médecin il était le substitut du procureur léegi mu am benn phase enquête boo xam ni dafa teniroon assisté ci auprès du juge d'instruction man moom ak maître Khoureyssi Ba ci cabinet bi mu posé ma une question à charge pour Ablaye Wade parce que le dossier était politique mais ba ma ko tontoo dafa am malaise ci saa dafa tëdd ci table juge bi ni biiram day metti noonu la quitté audience bi kon tey jii kooku ne woon sub ab substitut procureur ci affaire médecin Andrésia Vaz mi nga xam ni moo démissionné woon nekkoon président commission recensement des votes man de Clédor bëgg naa am jotaay waxtaan ak ñoom pour laaj leen laaj Andrésia par exemple lan moo waraloon mu démissionné lan moo doon problème pour mu publier résultat yooyu lan moo tax Kéba Mbaye démissionné moom wax na ko ci benn revue Jeune moom nekkatu fi mais Andrésia mi fi nekk war na mën a expliquer lu bëri ci lël euh, bu ñu bu ñu wéetee je crois que man bëgg naa ñu comprendre Sénégalais yi comprendre lan moo xewoon exactement en 93.